بسم الإله يا المرهب xanaa sant yàlla rek bi mu ñu boole ci lii tey nag sant bu baax a baax Cheikh Moul taxa di ko ndokkal ci bisam bu rëy bii nga xam ne ni mu ko waxee mooy bis bu gën a rëy ci li mu am ci àdduna muy boo xamante ne bii bisub Serigne Touba la ndax ñaanu Serigne Touba la nangoo ci moom mu def ko nag defal ko réew mépp defal ko lislaam jëpp kon daal suñu xol sedd na xooli mur yëpp sedd na xooli juris yëpp sedd na xooli taalib yëpp sedd na bis bii danga nga koy méngaleeg ba ñu teg euh, xeer jumaa ji wala ba sëñ Manoune Moussa di inauguré raay bi wala ba sëñ Fall di inauguré jumaa ji wala bisu Masaalikul Jinaan wala ba sëñ Abdoulaye di yokk jumaa ji ay histoire bi day am ay dat bii nag dugg na ci dat yooyu te du ci génn mukk ci àdduna ndax fu ne dina fa jógee jàng si li ci gën a am solo nag mooy kenn du fi jógee di dem ci réew yi naar di ñëw di indi yeneen jikko loolu dafa am solo nga ne kon danañ jàng yar téye sunu taalibe sunu jikko du yàqu ci benn côté loolu mooy li solo di ko sant rek. jërëjëf.